salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum euh, tous les téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel série yi daw ci Sénégal yëpp moo xam instant bi Golden maîtresse de homme marié brigade des femmes mœurs ak yeneen ak yeneen daal ñu encore une fois dañ koy comme vidéo bu ñu gis léegi rek ni moo ñu poussé sax pour ñu dugg mooy brigade des femmes Euh, dañuy blâmer loolu quoi parce que soxlawuñ gis ay jigéen yoo xam ne dañuy bandi bandi lu di tux cigarette parce que bandi bandi lu pour ñun psychologique la quoi maanaam nga nga utiliser woo sa xel ak euh, sa leneen mais pas ngay tux affaire yooyu noonu non bandi bandi lu leneen la psychologique la parce que gis nga gis nga kii gis nga nu mu tudd Sili Cissar nit nit ku koroktu la. ku sérieux la ku rafet la jigéen ñi sax bu ñu ko gisee dañ koy bëgg te teewul grand bandi la kon bandi bandi la man na nekk foofu beneen message bi nga xam ne ñu ngi koy lancé bëgg ko lancé waale sénégalais yëpp ak série yi ñu ñu ñu ñu dimbali sénégalais yi dimbali xale yi nga xam ne ñoom ñooy seetaan boo nekk ak peuple boo xam ne dafa am ay xale yoo xam ne seen xel màccut lu bëree bari da leen di jànkalaale ñu xam ne série yi instant bi mu fëkk njaboot gi xam ne Euh, presque ñu ëpp sax responsabilité euh, parents yi ci ci ci ci société bi ci côté xale yi parce que boo xoolee bari na man série yi dafa indi échec ci bac ci baccalauréat 2019 bi quoi parce que xale yi biñ leen waxee ne dañuy théâtre de maanaam biñ leen tegalee thème ci biir classe bi théâtre ñoom bi ñuy tontu ci série yi lañ doon tont te xamuñu ne série yi ñuy seetaan comme Golden maîtresse d'un homme marié brigade des femmes yeneen ak yeneen yi ay pot e marisu affaire yooyu noonu ak ay ay idole xamuñu ne yooyu du théâtre yooyu ay série la wala wala boog mën nañ ko tudde sax kon filmu théâtre leneen la xale yi dégg naa question yooyu bi ñu leen ko posé ci kii bi ñoom bi ñuy tontu ay pot et maris yu lañ répondre affaire yooyu noonu kon desa kon léegi loolu moo leen di xamal ne kon yéen réalisateurs yi nekk Sénégal war ngeen mën a war ngeen mën a def carrément ngir gën a motiver xale yi di leen jàngal ci série yi di leen éduquer aussi tamit ngeen di wane réalité Sénégal quoi parce que Sénégal du ay kër yu rafet rek dafa boo xoolee quatorze pour cent ñooy dundu ci dundu bu nice bi ñu gis ci série yi quoi ngeen wane les réalités dëgg-dëgg loolu moom film yëpp koy boole. ba ci ba ba ci ba ci kii ba ci maajoor ak joor yépp daal bàyyiwuñ benn ok merci jaajëf ki yow mi nga xam ne yaay dirigé lu xew TV merci beaucoup. maanaam gars yi bi nga xamante ni ñu ngi koy euh, dorañaale ci biir euh, série bi cigarette dafa doon loo xamante ni comme nu ko gars yi ni ci gars yi commentaire cigarette nekk loo xamante ni baax na ci santé. parce que boo xoolee sunu mag ñi yëpp am na jaar-jaar biñ ci def ku mel ni eh, sunu ma Abdoulaye Niass eh, wax na waay ñëwoon na bëgg dox si wetam eh, mu woo taalibe yëpp mu woo benn taalibe na ko waxal gaa yi ne la indi addiya ji dañ indi addiya ji lépp ñëw na ceeb ñëw na dugub ñëw na gerte ñëw na mboq ñëw na cigarette rek moo ñëw mu xool waa ji xool cigarette bi mu ne ko du baax de ndax ba wootee Eh, addiye bi pour ñu indi addiye bi lépp ñëw na mais cigarette lu mu baaxul moo tax kenn du ko saraxe kon kon kooku xam na cigarette nu mel boo demee sunu maam Cheikh Sidi Hadji Malick si radiyallahu taala anhu benn waaye ñëw na ci moom yore cigarette na ko dama bëggoon nga awal ma almet ma taal si Hadji Malick na ko amuma am naa almet mais awma almet bum mën a taal cigarette je que kon kooku wan na ko na ko cigarette baaxul dégg boo demee si sëñ Fallou Mbacke waa ji ñëw na si moom téye cigarette ne ko Fallou man de damaa bëggoon nga abal ma nu ma taale cigarette mu ne ko in muride da ngeen a xër rek yaakaar ne cigarette dafa araam cigarette dara nekkul mu ne ko mu ne ko damaa bëgg to mu ne ko mbaa yaa ngi taalukaay mu ne ko waa mu ko taalaat ba waa ji taale di manque di manque di manque ba yegg si lu xonq li nga xam ne bu bu manquaatee rek dana lakk loxo bi moom yàgg mu ne ko bu ma ko bàyyiwul lakk suñu fàll na ko mu ngoog yaa ko waxal sa bopp boo ko bàyyiwul lakk bi laay boo bàyyiwul cigarette da nga lakk kon cigarette ku ko bàyyiwul ku ne benn du la jox santé bu normal ñaar nekkut lu nga xamante ni lu suñu borom gërëm la te day ñuulal kol te dañuy wax naan képp koo xamante ni mu ngi tux boo bokk ak ndab mu ngi mel ni yow moo xamante ni da ngaa bokk ak xaj bi lekk euh, je que loolu kon wane na ne cigarette baaxut moo tax sëriñ moom wax dëgg yàlla moom cigarette bi moom mënoon nañ ko si génne rek incha allah maa ngi lay jaar bu baax a baax euh, di la bëgg jërëjëf jazakallahu xayran sa mbokk la Ousmane Cissé climat fii ci euh, région Kaffrine asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu sang bi maa ngi lay nuyu bu baax di la jaar di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax di am kontaan am mbégte sa benn vidéo bi nga xamante ni jël nga ko doon di commentaire muy bu ñuy wax euh, merci la brigade des femmes wax dëgg yàlla def na ci commentaire bu ama am am solo wax dëgg yàlla suma xol seet na si yow te lu ngay doxal am solo la wax dëgg ndax yaa ngi liggéey loo xamante ni yaakaar ne bis bu la ko yàlla fay incha allah xam naa ne da ngay kontaan wax dëgg yàlla sa vidéo bi dama ko téléchargé après mm, déglu ko après ci laa jël numéro whatsapp bi ma ne kii xaaral ma ko la Ousmane Cissé lañ koy wax mu ngi dëkk fii ci a région de Kaffrine waaw série mm, Merci la brigade de femmes mm, maam boobu dañ koy suivre waaw ay comme ni ci wax noonu wàllu cigarette bi cigarette bi de moom moo ci métti man wax dëgg yàlla te nit ku nekk am nga droit wax li la métti man théâtre bu du muy nangu mu may raw waaye daal ba secret bi génne man daal lu jiyee ko ci man yaakaar naa lu jiyee ci man waaw yaakaar naa nit nag mën ngaa jéem a defar nit da ba bëgg jéem a defar ba far yàq te du xam ne mu ngi yàq te jigéen ñooñu kooku nga xam ne mu ngi sax cigarette bi manque kooku mu ngi yàq waaye xamutoon ne si mu ngi yàq ndax loolu ay moromam mën nañ ko gis royee ci moom parce que am na ñoo xamante ni série yi dañ koy seetaan pour di ko dund te loolu ku ko gis ñoom amuñu ñoo xamante ni borom bopp yu oyof yi mën nañ ko wëlbatiku di ko dundee te loolu baaxul wax dëgg yàlla yow moom dañoo kontaan si yow wax dëgg yàlla moo tax ñu jël sa numéro nee nañ la sànni vocal waaye yal dafa la tawfiq ak taysir yàlla dafa la naja dafa la xamul dafa la shahadatu daara yi ci barke yonent bi wax dëgg yàlla sunu xol sedd na lool si yow yal na yàlla jàppale la. mbokki internet yi maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal <laughs> di leen dox suñu wàccuwaay saa su nekk te dañoo bëggoon a wax ci mœurs <laughs> parce que dafa nekk théâtre boo xamante ne bon sénégalais dañ ko commencé suivre de tellement parce que dafa am importance sénégalais man damaa yaakaar ne lépp loo xamante ne du ko neex da koy critiquer te mœurs ñu ngi koy seetaan. série yi ni ñu koy tegee ci télé yi beneen bi dee xale yi dañuy ñëw di seetaan man en tant man man xam mel ni sax xale laa parce que am naa vingt ans duma am temps pour seetaan ko ci télé bi su ma wàccee laa koy seetaan te guddi lay doon léegi imagine toi man may nekk di seetaan guddi maa ngi nekk sama néeg di connecté di ko di ko fa seetaanee sama yaay nekk ko sama papa nekk fa ma gis gars yi di tux di def yenn affaire yi nii jigéen ñi di ko def am ñu ñuy forme ñu nekk ci seen endroit bopp nekkuñu fa yaay nekkuñu fa pap seen bopp lañ fa nekkal tamit imagine toi loolu nga di ko jouer xale di ko xool parce que gone lépp lu mu gis danaan lu baax la kon bu boobaa da ciy roy man de maa ngi tuub di jégalu ci kàddu yi sax ko nekkee fii di seetaan sama néeg maa toog fii di seetaan gis femme bi di tout ça parce que man xamuma ko. ma mm, ci laa xalaat ma ne ñii euh, dañoo jël ñeneen ñuy liggéeyee maanaam fi neexul fi neexul yàlla mënumaa jaar ci tur bi parce que day ñaaw mu ne ba xam foofu dañuy liggéeyee wala nu mu fa demee na parce que moi je ne comprends pas parce que defe naa ne mi ngi door a am Sénégal ñuy joué série di ci dugal jigéen ñi di tux cigarette waaw du yoon parce siyaasi yi ak woykat yi xale yi dañuy xool di ci roy tey bu ñooñu dee dof nan lañuy def ba éduquer xale yi surtout ma jigéen ñi te jigéen xelam dafa sëgg lépp lu mu gis nag day defee ne lu baax la kon da ci roy kon nag nañ leen jéem a xoolaat suñu taxawaay bu baax a baax a baax. asalaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum jàmbaar ji yow mi am initiative ci YouTube bi dugal vidéo boobu noonu vraiment ñu ngi koy rafetlu quoi. c'est pas une chose boo xamante ne c'est un peu gratuite tax nit ñi di ko def xam nga Mœurs nekk na film boo xamante ne dafa débuté parce que nit bu demoon armée la mooy ana newoon ñu ko doon tuutil fam nekkoon yaa ngi comprendre am ñu mu nekkaloon foofu noonu doon ko bëgg sàkku affaire yooyu noonu ba tax mu débarqué wu kon on peut dire ne war nga mën a am benn compréhension boo xamante ne man mii kon depuis début film bi ba léegi maa ngi koy suivre mais nag la fois passée épisode bi je me suis dit ñu ngi commencé perdre point yi quoi point yi cela veut ñoom bii bii dañuy xeexal jigéen ñu ne kuy neewal doole jigéen ñu ne kuy toroxal jigéen moo tax ñoom ñu former seen brigade bu amul góor ay jigéen kese fa nekk. n'oublie pas on dans un pays boo xamante ne euh, islamo-chrétien ñaari religion yi yëpp am na nu ñuy doxee ci dëkk bi. am na loo xamante ne sax yow sa sa làmmiñ mayu la ko mooy ñooñu actrice ya fa ne ak acteurs ya fa ne am na ñoo xam ne permettre leen pour ñu divulguer ni situation yi ci opinion publique bi film la dawul une heure du matin dawul deux heures du matin dawul trois heures du dawul minuit vingt une vingt deux heures intervalle boobu noonu donc jàppal ne population sénégalais bi yëpp ñu ngi koy ñu ngi koy seetaan muy yaay wala muy papa muy rakk muy sœur muy xale bi xamagul dara borom esprit bu koo xamante ne xamagul dara dans la vie mu ngi toog mais bu comprendre li ñuy wax mais gis nag kii seex cigarette ci gémmiñ gi est-ce que du jàpp na lii lu baax la est-ce que lii kon maa noo gis góor yi ñu ngi ko doon def est-ce que kon lii jigéen war na ko mën def exactement donc bu boo gisee ne yaa ngi def film yaa ngi def série vraiment xam nga pour société bi la wala bu fekkee mafia film mafia ngay def on peut dire que ci point nga koy teg. c' est bien vrai nag boo tegee police bu police apparaître waaw mafia ghetto dafay génn d'une part mais fexeel ba booy divulguer boobu noonu na nga xam nenn noo koy dawalee parce que on est dans un pays boo xamante ne on est islamo-chrétien fii newuñ ay juif newuñ dëkk boo xamante ne les gens voilà comme les États-Unis wala leneen leneen leneen déedéet. Sénégal la nekk gom il fallait que ñu ñu ñu dox ak réalité sénégalais yi il fale que ñu xam fi ñu tollu sénégalais ak lan la sénégalais yi soxla ak lan la population bi soxla loolu moom moo ci am importance quoi vraiment nañ continuer parce que ñu ngi jox nit ñi connaissance ci à travers police parce que ñu ngi jox nit ñi connaissance à travers boo defee crime parce que ñu ngi jox nit ñi connaissance à travers les enquêtes vraiment c'est une série boo xamante ne c'est nice vie familiale bi tout tout est organisé mais nag booy yi ñu intégré moi je dirais que ne non yàlla xam na ko mënoon na ñàkk moom parce que des type genre yu mel nii on doit même pas les laisser dans la société ay jigéen yu mel nii nga ne jigéen nga war a joxe un bon exemple waruloo doon ab ab ab gangster gangster c'est pas que da toog loolu mooy divulguer bandi wala da ngay naan ba da ngay déedéet biir mafia mais parole yi ñuy expliquer comme ni ko euh, vidéo euh, antécédent bi waxe Euh, audio antécédent bi waxee du moins que da ngay dugal ay paroles yuy confirmer kii kat ci lii lay wax ay nit vidéo bi daw séquence yi daw ñu collé ko ak son bu son boo xamante ne c'est adéquat ak système bi ñuy def seen i habillement seen lépp tout milieu bi heure bi tout nit ñi dañ xam ne lii milieu mafia lañ nekk parce que police moo nekk de côté qui de la police parle wax euh, da ngay da ngay da ngay dugal mafia bi par force da ngay parce que loolu la. parce que policier dañ ko apprendre pour mu pour mu diviser société bi en deux les euh, ñu baax ñi ak ñu bon ñi deux côtés mais nag télé la quoi image day divulguer wër monde entier quoi donc lépp lu koy génn war nañ ko mun a xoolaat bu baax a baax en tout cas s'ils veulent pas péter les plombs bah vraiment nañ nañ nañ teggi seen tànk ci point boobu noonu vraiment parce que daal man moom sincèrement si ça continue comme ça je vais je sincèrement. yàlla xam na ko parce que nag nit buy def benn affaire pour yeete moo tax nga koy def mais c'est pas que benn initiative pour wane nit ñi di ma xew affaire yi dëgg la pourtant li xew ci dëkk bi nit ñi ñu ngi koy bañ pour xew ci dëkk bi loolu la imaam yi di di di kaas chaque jour li xew ci dëkk bi loolu la président bi di kaas li xew ci dëkk bi loolu la loolu moo tax police ne lewatul ah tu reviens ba pare di ko divulguer waat ci télé bi ba pare beneen génération bi ñëw nga may leen opportunité wan leen ne lii c'est faisable il faut que ñu pensé ci ah, fii ngay envoyé commentaire yi après ñu dugal ko ci kii bi ah bu épisode keroog moom laa doon commentaire parce que xale jigéen yooyu moom gaa seen bandi bandi lu kii na mais tux bi cigarette bi rek man moo ma xaw a déranger tux bi rek moo ma xaw a déranger mais brigade ji moom macha allah neex na ana moom man damaa neex parce que dafa. fidèle ba pare dafa am fula daal mën naa lijjanti li muy lijjanti te du ci boolante ay wax man moom macha allah aana damaa neex ñoom ñëpp ma neex mais aana damaa neex. salaam salaam sama waa séeri ma si la brigade maa baax a baax waaye di leen wax ne épisode bi dafa am affaire daal dafa mel ni dafa commencé di changer quoi waaye par rapport ak équipe bu aana bi. équipe bi mujjee ñëw ni famille si mujjee génn ni tamit am cigarette bi tamit affaire yi moom rafetul quoi bii passé moom yëguma si sama bopp te nag théâtre bi doon naa si gën a yëg sama bopp ka bii nii passé waaw bii passé moom yëguma si sama am affaire cigarette affaire yooyu noonu loolu rafetul ci góor sax jugul góor asuma ak jigéen quoi oui yooyu moom rafetul quoi. bonjour salaamaaleykum maa ngi bu baax waa groupe bi. man dama ñëw joxe sama intervention si épisode bu passé nii mi épisode dix neuf xaw ma vingt euh, mu doon groupe boo xamante ni rôle bu ñu joué foofu comme wàllu fumier nekk na loo xamante ni mënoon na bañ a feeñ si épisode bi euh, mœurs dafa doon loo xamante ni brigade des femmes la femmes yi dañoo war a wane seen taxawaay wane un bon exemple wane si wane ne ñun ay jigéen lañu mais dañuy représenté loo xamante ni. góor ñi mën nañ kaa bañ représenté si si pays bi li ko demee ni ana ana moo doon jigéen boo xamante ne moom bu gëm loo xamante ni amul si preuve bien vrai que bu ñu demee hôpital gis ne euh, juge ça nu waa ji bien vrai que tamit bu ñu ñëwee di vérifier reçu bi xam nga boo demee hôpital dañuy jox reçu gis na ne lii mënul nekk ça n'existe pas mais ku mu àndal kooku moom bien vrai que ana xam na ne lii ça n'existe même pas ana moo doon jigéen goo xamante par conscient tranquille lay demee euh, gisoo bu mu demee si jëkkëru euh, affaire bu waajooju noonu première fois bu ñu wut connaissance ak moom nangul d'accord nekk connaissance ak moom te lay wax ne ànd nobul ko seen bii di waxtaan oui ça léegi seen bii di waxtaan ñoom ñaar euh, si téléphone si la si mu gis moo amour kon nga xamante ni si foofu lañ war a war a si lañ war a base ko que ne ànd nobul ko ay résultat lay wut ay preuve lay wut pour yu mën a wane que euh, kii jëkkëram moo jabaram moo ray kii dañoo war a xool action bi ni muy déroulé ana moo doon jigéen goo xamante ni euh, man daal dama ko naaw daal te mu ngi wane bon exemple avec ses camarades et comme chose vraiment man maa ngi apprécier bu baax mais gars yi nañu intervention neneen si lu may ay fumier ay deme noonu bien vrai que mooy loolu daal